السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فالله وهاب يا رزاق يا ملكي وهب لي وارزقني يكون الآن ضيقي أتي عاجلا بالبشر مع مرد حتى كما لدين الله أركانا استرجو عين التوبة واحمني وقني أدى الغرى وتبسم أركانا كسما والآدي والحب يا مشارك من يركم أكون أجب سلف من حسن محمد وتفلي فائقا بنا سبحانه وتعالى سيدنا والحمد لله بحامنا آمين salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ngi ziar ñëpp waa alxam xadim waa alimada waxit ma waa ak biir waxi ñëpp ñu ngi leen ziar xam naa Modou sëñ xadim mi dafa laaj laaj bu am solo laaj lay ay laaj yu am maanaa la yoo xamante ne man mën naa taxaw lu bu baax a baax déglu ko seetluwaat ko seetantal ko laaj bu njëkk bi bi mooy maqaamat yooyu ma ñuy wax nga xam ne maqaamat yi wax nañ ne sax sunul misri yi kii ne ko ba muy nekk ñetti téeméer rek nangam maanaam nag Abu Talib bi makk yi def def ko juróom-ñeent loola ay loola dañoo théoriser dañoo théoriser tasawuf waaye du du firi ne loola mooy waaqan bi ab plan la bu ñuy tegal nit ki rek nga xam ne ne bu ko bu ko xoolee di jàng tasawuf dana ne kat lii kat dara la ndax ndax fiq dañ ko théoriser tawxid mooy doon kaam dañ ko théoriser tasawuf it ñu théoriser ko rek waaw yooyu ngay dem ci téere yi xam naa xam naa dama la yebal rek ci téere bu ñuy wax ixaasul himam fii sarxil xikam téere bu am solo la téere boo xam ne man dama ko yoroon 88 988 laa ko jëndoon def ko mu sama mu nekk sama dokk sama ko am da xam ne moom laa doon moom laa doon wétali ko moom keer dafa leer nañ ñi ndax kooku naa ji ba nee na mi ngi ko ñu ko saraa ci ilham te lu mu ci lu mu ci am lu nekk da koy da koy mandaxe ci mandaxam kitaab ak sunna lu mu ci gisut mu teg ko fay maanaa maanaa lu ci sunna nanguwut laa bëgg wax waxuma lu su sunna suñu suñu tare yi waaye principe yi laa wax principe yi ak ndax mu ay mufradaat yu yu tuuti yi sunna sunna hadis yi waxuñu lépp àdduna àdduna mëdut ndax sunna ku ne xam na ne xeex yi bari na téeméer at ñu soog koo bind ku ne xam na ne lu bari naaw na bi amu jot wax lépp waaye principe bi lay wax waaw de fiqul xanoon fiqul xanoon maanaam léeg-léegi baatinu loi yi principe yi lay soxla di indi lépp maanaam principe yooyu ci la mu taxi doon yi di delloo di xam àtte yu bees yi joxoon na waa si yooyu koy jur maqaamaat yi kon taw ba la nit ki di jóge taw ba al inaabatu ilallah wa anibu yaa bi boo ca tegoo ci ca yoon wa nag kon kon kay sukkuro dafa aajo ñe lu muy njukkal nga xamante ne suufiyanke yi ku mel ne ku mel ne xel jilaani moom aussi na jaaxadoo fii naa moom moom la def muy am ngërëm ku mel ne si abul xasan saasali yi def la in sakkatum fasi danakum mooy ngërëm booy dox ci nga jóge nga taw bay di dem masala taxañal lépp ndax ko mel ne awu si mustaami ñetti fan la tërbiya wu benn bu jëkk bi ci la jéggi àdduna benn bi mu jéggi alaxira benn bi mu àgg ca su borom kooku kon dañ koy taxañal tooy du tarix al xaw mi waxtam ci day yi nga xam ne kon xam ne ñu tuddee anwaarul anwaarul muwajiha booba na nga gis ay leer yu lay gandiko ay gandiko nga xam ne nga ci ngay xam lu sa maas gi xamut loola loola loola loola loola loola loola moo lay dimbale la ko jiitu mooy anwaru iqbal loolu ixwaal moom mooy mooy jëkk agsi mooy gis bu bi yóbbu la ci yoon wi nga daal di wute gaa yi jóge ca ca mbooloo ma ñëw ñëw ci yoon wi wét fa lool an wa loolu mu waa jëf ñu lay jox ay léeg-léeg leer la xamal ay mbir yoo xam ne da da ngay daal di di xam ne kat lii nga nekk mooy dëgg moom nga am yaqiin arab ci ay terme inu xulub sa xel dal loola loola nga cay dox boo demee boo demee ca ca sabru ca dox boobee sabru mën na faa juddu nga xam ne ni ko ni ko ni ko yoomu jine di asari xadisa asari waxee ne mooy te jaroxol musiba min xëyri tax bis xam ne mën naa métti lool ca wéet gi ngay wéet rek ca ca nit ñi la ñuy dund nga nga seppi ko ca loolu mën naa métti lool loolal nag ci mu métti ba noppi te te nga bañ a gaññe kenn ratatata suna na nekk mu roy ma nga ci nga bañ ñi gaññe nga xam ne ne ne kon maqaamaat yi noonu noonu ñu koy waxee du du du firi ne loi la buñ tër boo xam ne faw nit jaar ca ab ab ihdaasiye la ab pala boobu ñu nekkat faw lii daal gaa yu baax yi kat seen doxin waa nga noonu da ngay dégg ci misaal sumtun wa jowoon tawil baadahu sahrun jowoon tawil jowoon wasat lañu wax waaye waxut bu yàgg jowoon wasat jowoon wasat sëñ Abibu Mbakk imaan sama rak nooru muuru nana dama walaaj ne ko waaw ku bëgg a lekk lekk tuuti nooy def mu ne ko xanaa muy naqari te tuuti muy naqari muy naqari te tuuti waaye loolu loolu loolu joomu wasat la waaw loolu nag loolu nag dafa aaje kon salaako xam ne su fekkee ne juon rek wasat bi lañ ci jublu waaye ci waaye jubluwuñ ci juon bi maanaa xiif dëgg maanaa lekk ba fàtte xiif te bañ a àgg ci rek loolu loolu la ñuy wax ndax ndax mooy tax yaram wi yaram wi yaram wi féex kon maqa mal yi kon ni ñu koy waxee non tisan yi du firi ne kat escalier boo yëg boo tegee fees tànk fees tànk danaa wax ne ne sax minul baax ci xadim yàlla yàlla yokk ngërëm borom bi muy bi muy bi muy bi muy bi muy ñuy wax wax Sëñ Tuubaa ku ci xulub la jëkk teg daal ko cay teg ko seetu di ko ci xoole lay sëñ bi waaye waaye bu ñu waxoon rek lim doon gis ci sëñ bi rek moo ñu doon gën a noppal waaw ndax noonu bu nuñ sëñ bi la soxla xam soxla wu ñoo xam xuutu xulub xuutu xulub boobu bu neppee dañ koy dem xooli ko ñu xoolee xuutu xulub gis gis luñ luñ ci dëppoo ñu ne sëñ bi dëppoo naag xuutu xulub fii luñ ci dëppoo ñu ne dëppoo wut ak moom fii waaye ci waaye fuñ toll minu baxadim soo ko dee jàng te amoo xalifiye taarix yi amoo amoo amoo xam-xam ci démb taarix mu ngi démb dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg daanaka for dalay lëm waaw dalay lëm kon kon kon maqa ma jàng bi ko kon maanaam plan la dañoo fekk kër guñ defar ba noppi asi asi teg teg di xool ne nii la tëddee waaye lam ne ñu ne ko moom lu mu njëkk def mu ne xanaa nangam nangam nangam lu ci dul fondement boobu muy ataw ba rek mën naa bañ a nekk nam ko foogee dëgg dëgg dëgg salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu wa barakatu waa kay mu kon ñu sofaat ca ci laajam benn beneen laaj bi mooy ilmu adat ilmu adat xam-xam la boo xam ne judd na ci tasawuf xam ne itihaad la xorof yi yàgg na fi nag ca pharaon yi ba tey lañ wax ne ñoom ñoo ko jëkk jëkk def di xool araf yi nga xam ne relation arab yi lettre yi lettre yi ak monde bi loolu ay borom xam-xam noonu ko noonu ko ba dem ci mu xis mi mën a dalaal noonu noonu noonu ko ñoom xasee waxee ne xatim ba tëddun sax jun waax moom xam-xam yi niñ ko calculer ba nga xam ne soo defee noonu ñaari xatim yi benn ba di alat benn ba di ay ba ay araf ci nga bind ko jigéen jigéen joo xam ne dafa matu nga ci nga kii ko nga nga raxas ko xëpp ko ci naq ba mu daal di am doom bi soob bi yàlla te loola loola mu ne mu ne benn benn kër ci kër yooyee këri xaatim nga boo boo ca juumee loole nga bëggoon du mën a am xëy loolu ay tihaada la ay nte di góorgóorlu di wéet di wéet di góorgóorlu ba ba suñu doom xamal leen ci arab arab yi loola waaw arab yi loola waaw kon kon kon moom loola itihaad la noonu noonu noonu nga gis moom mag ñi dañ ñi daal seete ak sëy ci ci nga xamante ne dañuy wàññi dañuy xool turu ndaw si ak turu aji bëgg ji góor yi daal koy jël alat ko plus seize daal koy daal koy wàcc neuf neuf la ca des bu dee cinq la ñu wax ñu ne bu dee bu dee cinq la bu dee bu dee sept la bu dee six la bu dee deux la ñu ne kon baax na sa trois boobu nga xam ne bu ko bokk na ci baaxut trois boobu ba ba comme comme comme sa Musa feeñ ci ab diggante ba ca kooku du du duggee sax aw ay mën na caa juddu lool faatoog ñàkk ak lu ne mën na caa juddoo loolu moom moom mag ñi ñoo ko. ñoo ñoo ko xool ba ba gis ne loola wér na loola loola nag moo xam-xamu médecine bi rek rek kayam waaw moo xam-xamu médecine bi maanaam fan yii dañ dañ ma ma gént am lu ma gaaroon ma ma gént ñu wax ma ay baat sàngam ak nangam ak aar sàngam mu daal di koy koy def bind ko daal daal di ko yëy mu daal di loola ma doon gaar daal di dañ ca saasa nga xam ne loola ko kon moom ci xam-xam la waaye nag comme neex def koo xam ne ni doyul it nga bokk waaye nag nag itihaad rek la ni ni itihaad ci fiq ak ca ilmu kalaam ak ca tasawuf lépp ay itihaad la ndax ndax danaa wax ne loolu yaamu jén di waxoon xadisa sa waxoon ne si nat yu day bu doon xeex yi kon dañu dal ci seen xam-xam bi waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñàkk jot jot tax na tax na la mu xamoon ci baatin dëgg dëgg dëgg dëgg bu bu toon nag wirase gi ñu ngi koy joxalante ak royu sell yi ginnaawam kon yu bëri leer mu ngoog du kaxaana loola du du njawar elmul xoof lu am maanaa la du donte ne ne man nag doxewu ma ko man man mii man doxewu ma ko sama rakk ne la laaj ne ko suñu ayibu na ko lasaar mu ne ko man de lasaar dama ko doxewul woon dama ko doxewul woon waaye man man bi noonu la noonu la noonu la dama ko doxewul waaye ci ci ci waaye nag weddiwu ma ko weddiwu ma ko waaw waaw loolu ne ko salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu waaleykum wa rahmatulah wa barakaatu ok Modou kon man nga cee sumaat lii kon waaw kay mooy kon maanaam liñ jublu ci ci ne ku mel ne Cheikh Ibnu Ajiba ba ba muy sara xaasul moom lu ñëw ci moom mu daal di di di koy mandaxe ci mandaxem mu sariya maanaam mooy ca Abul Hasan Sali Sasali moo ko dénkoon dongo yi lu ngeen gis ci ilham nana nana ngeen ko mandaxe ca kitaab ak sunna bu ngeen ko gisut ngeen teg ko nee ndax kitaab ak sunna moom la ñu digal ñu topp ko loola mooy dongo yi bu dee na na kàngam yi suñu doon am am na ay xususiyaat bu leen ma ci topp lu leen gis gis mu wuuteeg mali malikiye na ngeen ko na ngeen ko fa ba te topp malikiye loola loola mooy bu dee ci jëfandikoo geeg ak ak ak ak di ko wax ñi bennati nit ñi nga xamante ne kii nga leen loola moom loola kon loolee ñoo xëy bi noon al al madunun bii an an xëyri ahli jërëm boo xam ne daa daa waxoon ne daal moom téere boo xamante ne ku ku ku ñoom waru koo gis téere bu sax ga gaa yi ñu ngi laam-laam bu mu doon ndax dafa jaxasu sa kii ci téere bi waaye loolu day am xam-xam yoo xam ne Seydou Mouhamed dina waxoon ne ko ne xam naa xam naa ci xam-xam yoo xam ne boo boo ko waxoon gaa yi gaa yi danañ daganal sa sama matériel te dañuy gis ne dañuy jàpp ne loolu loolu loolu ñuy def lu lu baax la waaw loolu la loolu la ok ok kon loolu it mën nañ ci jàll jaral jaral waaw waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh